sport et comme tous les matins c'est si ànd ak ki nga xam rek moo Arfan ñu daal dikk si wàllu actualité mu alors Arfan ñu na lu baax ba di la ziar bàyyi nga daal di nuyu téléspectateurs tout en espérant que vous êtes bien réveillé ce matin. Mm. oui c'est euh, Fallou maa lay fay maa lay nuyu bu baax di la jaajëfal di nuyu l' l'ensemble des téléspectateurs yo xamante ñom ñoom ñoo ñuy seetaan de nuyu aussi l'ensemble des équipes de la région de Sénégal 5 TV di nuyu ñëpp di souhaiter ñëpp jàmm. Mm. alors merci beaucoup chers téléspectateurs di leen nuyu di leen ziar bu baax a baax jaajëfal leen ànd bi saa su nekk ak suñu programme xam ne nag seen émission le Talk du matin dafa daal di nuyu si mi si nu mu gën a yaatu nañ si daal yéen alors li si nar a gën a def na benn ko sortie ñëwaat na si nu mu gën a yaatoo par rapport ak yenn ponk yi nga xam ni itam sénégalais ñu ko si daal di doon doon euh, xam ne moo di Ayib nag euh, ñëw na ba daal di euh, ñëw si li nga xam ne moo di Sénat ma ni kon ba tey mënagul gis si nga xam le directeur général de ngi ko daal di de fàccee si nu mu gën ki n'a xam nekk moo Ousmane Sonko moo daal am benn soutien de taille djogé si li nga xam euh, nekk moo UFP li tam daal nek ben organisation bu am solo fi si li nga xam nekk moo di réew mi euh, tamit si décret bi nga xam tam itam Macky Sall mo ko daal di jël bobu de décret nak maniko ñukay ko ñu daal di attaqué un peu partout à travers li nga xam nekk moo justement la presse nga dañ ko daal di yaatal si nu mu gëna a yaatoo ni tam ki nga xam nekk moo Abdoulaye Sylla nak mo tamit nga maniko mu kon euh, ko daal di remplacer mu daal nek aussi li nga xam nekk

balaa ñoo ñëw actualité phare mais rebondissement tout d'abord euh, par rapport ak Sonko bi nga xam itam dafa daal euh, saisir wala comme ça dafa bëgg ñu daal li nga xamné que modi justement mm, euh, euh récuser li nga xamné que modi le juge rapporteur bu ki nga xamné que modi Abdoulaye Ndiaye bo batay nak nag démb jur na li nga xam que modi di alors tay ñu gis ni li nga xamné que modi di ses avocats ñu daal di confirmer boobu de information japp ni seenu client moko ko li nga xamné que modi di li nga xamné que modi peut-être pour ñu daal di récuser boobu li nga xam nekk moo juge parce que amul confiance euh, si parce que moom le juge Abdoulaye Ndiaye euh, il en a déjà parlé par rapport à ce dossier te ku xamna xam posture am allant dans ce sens. oui je crois que waxna ko fi démb c'est normal nee naa la hmm. juge mënoo ko réquisitionner euh, bu fekkee commencé na donc procès bi. ba hmm. dem ba ci bir nga bëgg ko réquisitionner loolu yoon mayul la ko. Hmm. maintenant yoon daf la may. Euh, nga réquisitionner un juge via tes avocats tes magistrats. Euh, nga yabal len pour ñu euh, wax à ton nom mooy maanaam ñu réquisitionner le juge parce que da nga japp ni que defo foog deko ko confiance. Mm. wala da ngeen am. ben contentieux ci la vie sociale moy manam sen famille yi ñu wala yaa ko moom déggoowu leen ci la vie sociale tey mu jakarlo ak yow en tant que magistrat wara juger sa affaire sou la neexee ne leen eh kii dama koy réquisitionner parce que maak mom dans la vie courante dañoo am problème wala meusna addu euh, ci sama dossier hmm. sama sama dossier donc man dama koy réquisitionner bo xolé Ousmane Sonko dafa réquisitionner le juge c'est parce que dafa japp ni que juge hmm. bobu adona ñu bopp adona mësoon a addu ci mbir mom ba paré donc tey motam mom moom ko accepter mu ñëwaat en tant que juge rapporteur donc ci affaire bobu ce qui veut dire que mom euh, wóoluwu ko te dafa jàpp ni euh, moom jàng na ba pare donc wan na moom ci ban ban la far donc moo tax Sonko euh, via ses avocats deful donc confiance juge mm. boobu c'est normal ah yoon moo ko mooy loolu donc loi Sénégal moo wax loolu c'est pas ça loi Sénégal ça dépasse largement mm. loi Sénégal ni que juge euh, euh, avocats yi meun nañ ko réquisitionner à mm. tout moment. Mm. euh, buñu jappé ni que mom peut-être euh, animé wu len confiance bobu c'est mm. normal donc. tay ñu gis ko avec Ousmane Sonko avec ses avocats aussi ñu dem ba réquisitionner le juge Ndiaye donc buñu jappé ni que euh, aspiré wu len confiance te ñom duñ ko bayyi mu rapporter affaire bi parce que ñom dañuy bañ tamit mu jël ndogal bo xamante peut-être. Euh, voilà mom buy wane ni que peut-être dafa far. alors euh, mais euh, avant donc avant c'est quoi la différence ak le juge Sabassi Faye parce que les avocats d'État du Sénégal bëggoon ko li nga xamné que modi di non du ben. les avocats les l'agence judiciaire de l'État. Hmm. donc Moussa Yoro Diallo bu mu demee à Ziguinchor. voilà plaidoirie voilà, wala instance bi di commencer dañ ko laaj ndax day réquisitionner juge bi. moi moo ko hmm. waxal hmm. boppam. mu ne ko du du ma ko réquisitionner duma ma réquisitionné juge bi Bobu, dañoo amone peut-être yaakaar ni que dinañu gagner procès bi. donc le début. le début mus dañ ko laaj. Euh, euh, Moussa Diallo euh Yoro Moussa Diallo Yoro Moussa Diallo dafa bañoon récuser li nga xamné ne. dafa bañoon réquisitionné le juge Sabassi donc qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé pourtant on lui a posé la question bala muy démarrer on lui a posé la question communément comme on le fait dañ ko né est-ce que dangay ngay réquisitionner juge bi wala dang koy baye mu dem mu ne non c'est pas l'appel dama koy baye duma ko réquisitionner. Hmm. mais la grande surprise que tout le monde euh, euh, a donc euh, surprise bi moy manam dafa baye Sabassi Faye mu donc comment dire instance boobu. Hmm. jugement bobu hmm. ba ñu dem ba les abords de vingt vingt heures vingt heures ñu lay wax dix neuf heures vingt heures. Mo xam ni que ah luy xeeñu baaxul mu ne ko d'ailleurs yow dama la mm-hmm. heure nous ñi ñuy perte depuis si mm-hmm. ba dix neuf heures vingt yow nga taxaw d'ailleurs dama dama tribunal bi compétence mm-hmm. alors que c'est pas un agent judiciaire de l'État mooy taxaw ne tribunal bi compétent tribunal bi ci bopom moy déclarer sa compétence ou sa non compétence. donc la la différence ak fi les avocats d'Ousmane Sonko. merci waxu ñu tribunal bi compétent mais donné le juge rapporteur le wolul xam la différence lool amné ci droit. xam la différence ñi dañoo def procédure normale. moy hmm. manam dañ la may nga réquisitionner un juge toutefois wóoloo ko. wala avant le procès avant le procès. merci. Hmm. mais l'autre en plein procès en plein audience en pleine audience le bëgg réquisitionner le juge. Hmm,

ci le procès wala après le procès munoo réquisitionner un juge alors que nous, nous, dañoo ba procès en pleine audience nous avons ko voilà la différence des deux ñi fait la doxal nous avons doxalu ñu nous le juge a refusé ñu ne ko nous réquisitionner un juge en pleine audience te ba mu juge bi Faye kaa ñu mu publiquement la garde, commencé di wax ay wax juge ci wax ay wax euh, comment adresse tribunal bi compétent wul ci wax mm-hmm. commencé di wax ay wax way euh day casser euh, comment des décisions bi day def en cassation Il ñu jarale dem heure bobu déposer ko au niveau de la cour de cassation de Ziguinchor alors que à 22 h ban institution ban administration moy fonctionner à à 22 h non waxuma moi sérieusement entre toi et moi ban administration mooy fonctionner au Sénégal à 22h xanaa nga dem Chine de wala Japon mhm. Yo xamante Nyom, ils sacrifient parfois le temps de travail même ci guddi gi xam nga gis nga Chinois yi gi travail presque. Mhm. même bu ñuy tabax fii stade guddi la ñuy liggéey. Mhm. moo à moins nga dem euh, ci côté yooyu pour nga gis administration buy buy fonctionner heure bobo, mais ni en Europe ni en Afrique administration du liggéey ba 22 heures. mais pourtant ñoom déposé nañu seen pourvoir en cassation boobu à 22h xam nga fan la ñuy yee juge boobu la cour de cassation de Ziguinchor bay déposé seen requête moo tax ma ne la ñoom procédure normal bi respecté wuñu ko wàcc dañoo wàccoo protégé procédure normale moo tax ñu bëri ñi critiqué leen mais bu ñu respecté woon procédure bi maanaam balaa procès bi ñu ne juge Sabassy Faye ñun dañu lay réquisitionné là ñun ñi kenn du critiqué parce que yoon moo leen may loolu. Hmm. moo tax ñu bëgg ñu respecter à chaque fois yoon il faut que ñu respecter yoon bu ñu bëggee nit ñi wóolu leen xam nga justice bu bëggee nit ki wóolu ko day day rendre ay décisions yoo xamante ne des décisions envisageables mais maanaam ñu sukkandiku ci yoon nga joxe ce verdict parce que la euh, ce verdict là est rendu au nom du peuple du loolu la ñu wax loi la justice est rendue au nom du du peuple n'est-ce pas du loolu donc peuple boobu mooy xaar booy rendre euh, euh, justice booy rendre verdict wala boy joxe décision na décision bobu mengo ak suñu loi yi laaju ñu lu métti loolu dong lañu laaj donc mi ngi